ci turu sëñ bi. ak baatu Cheikh Mouhamadul Mountakha. ak baatub Cheikh Mouhamadul Mountakha mii sëñ tey. mu yebaloon ñu ci bis bi. nee na mu yebal leen. ñu ñëw teewal ko ci dëkkam bi ñu ñëwal teewal ko ci dëkkam bii di Daaru Kan. di dëkkub boppam. di dëkkub boppam. njabootuk boppam nekk fi. mu yebal ñu. mu yebal ñu. ci bis bi ci bis bi nga xam ne. nga xam ni. dañ ko taxawal. dañ koo taxawal. ngir jëmb yàlla rek. ngir jëmb yàlla rek. digentem ak muntaha digentem ak señ ak muntaha kan digentem wajur la ne digentem wajur la ak dom ak dom ñoo yem ci kër gi kep ne na ñoo yem ci kër gi kep mo mom mi wax ni ñu juré ne ni mu leen juré ñom ñi ni la ko juré ni la juré munta señ muntaha mi wala sax wala sax mu gën ko juré non mu gën ko juré non ndax ndax wax ne señ muntaha dafa wax ni señ muntaha mu feñal karama mu feñal karama Kan, waye diggante sëñ Muntaxa Kan mi ak sëñ Muntaxa Géy mee. ne ku woon xool rek xam ni sëñ Muntaxa feeñal ne feeñal na ci karaama. nee na ko amuk setlu rek. ci xol ko. da nga xamni ni mom moom na fa karaama. alxames njëkk ji dafa ñew ne Muntaxa da nga def. ma ne ko Mbàkke nga professeur Pierre Ndiaye la mu wax Pierre nee na yaram yi yakuna mu ne Muntaxa ma ne ko Pierre nee na mënumaa mu gëdd ma ni ma jógal ma ànd moom dem ba ci couloiru Fann bi mu ne ma doxal ki ma jàkkaarlool ci néeg bi ci ci hôpital Fann ma mais kan kan yaa ngi dox yaa kan yaa ngi dox ma xoolaat nekk di géntutuma boobu fajar jot na toog naa bu ma ko bëggee net lay gudd maa ñettilaat beneen nekk naa Ghana Accra jënd fa or war a dem Suisse ñu jël poisson jox ma ko ci hôtel Saint James ambulance indi SINIT HOSPITAL, nous, hôpital ñu perfuser ma tégal max oxygène ma yeewu le lendemain ma xol gis fixe ma def 0 33 978 13 84 mo done fixe bala may noppi sama gi xamna lima ma dal booba Nogi Ajna, man xamna ni buma ko joté ak wér ñett yoon la wax mun lo dal sama noo gi dellu si ak yoo xam ne mën naa ko nett fu ne jaar naa fi fu ne jaar naa ko ak moom ba ma xamee ni mooy sëñ Touba yàgg na maa ko njëkk a wax ñëpp ma leer leen ko ci feebar boobu ma wëre nekk Casamance di wër fu ne laa toog HLM Néma 1987 lañ ma won ni mooy sëñ Touba ma ko Karim man ba ma xamee ni sëñ Touba la yàgg na war na ma ko ci baatin sama groupe dab na ko ñaari yoon ñetti yoon indil ma loolu laa bëggoon seere ko waa senegal moo tax euh, bi mu xewee Euh, fa ñu jógee sori na lool muy poroxaan waaye dafa nekk mbir moo xam ne bu ko ko ak jotam mayoon euh, du ci yabal kenn moo koy teewal boppam moo tax mu tànn ñu ñu ñëw ngir mottalil ko yéeneem jooju waaye day mel na sax bi ñu agsee yëg na ne loolu du ko ci doy moo tax mu woote waat pour jokkoo euh, ñu euh, te xam ne kenn ku ne xam ne ndax sëriñ bi mën naa am loolu wax bariwul lu mu koy def yónnee ci béréb waat fa boppam. kon loolu day tegtal rek fi mu teg njaboot gii njabootu sëñ Moustapha Kane waaye rawatina njabootu sëriñ Lay Kane waaye rawatina euh, njabootam gii mu fi bàyyi muy sëriñ Bachir ak sëriñ Mountakha. kon yaakaar naa ne foofu liñ fay déggee rek mooy soññuwaat. Euh, ndaxte ànd ak sa kilifa euh, mu am mbégteem xol ci yow mu am euh, ak ànd ci li ngay dox mu ànd koog yow yaakaar naa ne loolu ku ko am rawatina ak kilifa gu mel ne ak Cheikh Mouhamadou Mountakha yaakaar naa ne loole li ci war rek mooy takkaat sa ndigg gën a yeesal sa jaayante ki nga jaayante ak Cheikhul Khadim euh, gën a laxasaayuwaat ci jaayante googu nga matal ko ni nga xam ne noonu la ko Cheikhul Khadim bëggee. mun taxaa ku ne xam na ko président yore na ci yow tey jii ci bis bi ndax mbir yu baree baree bare li ko waral dafa bari la ci njëkk mooy sa taxawaay ci wetu président de la République ngay taxaw bu rafet taxaw bu sell gis nañu li nga def ci élection yi élection février 2019 yi bi mu méttee te coow li bari da nga bàyyi la nga doon def lépp bàyyi sa caractère apolitique ñëw taxaw futtiku créer un mouvement de soutien jàppale président ba Sénégal gépp xam ko di jël ay risques président noonu li tax nag tey mu am mbégte tey yebal délégation si bis boobu mooy li nga ko defal nee na bu loolu wéyee daf la gis sa taxawaay yootu baayam di xaritam di sëriñam président nee na mi ngi lay gërëm mi ngi lay sant la xam ne nag bu ñëwee fi dem yowal fi ay nit tey muy bis bu rëy rëy rëy di bisu Serigne Moustapha Kane toppoon Serigne Touba Xaadim Rasuul liggéeyal ko guddi liggéeyal ko bëccëg kon bu ñëwee war nañu tàllal suñuy loxo. di bisu fàttaliku jàmbaari lislaam de sa maam Serigne Moustapha Kane moo toppoon Serigne Touba Xaadim Rasuul nee na lii moo war tey mu def lii mu def tey jii. di sant tamit président de la république ak secretaire général am Mohamed Bou Abdoulaye Dione ak le ministre Sophie Gladima. ma dama dama lay yóbbante ci président nee ko. na xelam dal eh. xelam dal mooy sëñ Muntaxa ba mu nekkee sëñ Tuubaa dama koy wax yàgg na ba ma xamee ni sëñ Tuubaa yàgg na mm-hmm. ba ma xamee ni wàllu la yàgg na mm-hmm. ba ma ba xamee bis bi mu amee kàlla martabam sëñ Fallu na am mu am maa ko njëkk a wax ñi muy àndal mm-hmm. am na martabam sëñ Fallu na am na am mën na ñaar fukki at dafa xam du fanaan àll samp na ko te kenn du ko sempi jafé bi nak man na am jafé jafé mën ta ñak waye nekkoon na xalam dal xamna sama jambar ji waaw samp na te kenn dootu ko sembi ndax sëñ Muntaxa mii bu wootee bes bi ngir ay waajuram ay nit yu bax tew lolu yëpp ci sa ciobara la nek kon sa bes bi euh, madame lamit bu sañon cabinet bi yëpp moy ñew comme ni ko madame lamit bu sañon ñëppay ñew ku mu xam rek dana ñew ci sa bës bi mhm. ndax fi ko fété wax na ko mhm. ni nga koy taxawoo ci biir ak ci biti xam na ko mhm. ñu lay sant ci loolu di ci gëreem barki dem bo ñay dañu ñew Touba nga dalal ñu sa kër defal ñu teraanga macha allah association bi dem ba ci xalif général sa taxaway ci rew mi sa taxaway ci diine ji sa taxaway ci kilifa aduna yi na nak le président Macky Sall bi nga xamee ni ñun ñi nga xam ne dañu ànd ak moom dañu jàpp ni doom la ci xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké doomam la taalubeem la soppeem la te itam mi nga jël bëtam teg ko ci moom lu mu ko digal mu def ko lu mu ko tere mu bàyyi ko kon fii bu ñu fi ñëwee bu ñu fi jëree parole war nañ ko mën a def ci ñaari boor ba ñett waaye bi ñu ci gën a neex nag. mooy li ñu ñëw fii yépp wut si wu ci fi dara lu dul sàkku ñaan pour réew mi dal pour réew mi am jàmm pour kilifa yi gunge réew mi yor ko ci seen xel bàyyil ñu fi kilifa diine yu baax yi yàlla yàggal leen fi ñu yàgg a ñaanal Sénégal ba lépp li nga xamee mooy xew ci àdduna bi loolu moom ñun yàlla bu ñu ko xam mukk waaw ah, ci turu président Imerou mi ni président mi ngi lay sant parce que bëggul lu nit ko am taxawaay ci goxam nit ku am taxawaay ci askan wi ak nit ku am yéene ak pas-pas ah réew mi nag man bi ma fi ñëwee 2014 dugg Kajoor bi ma toogee président dama ko ni man li ma wër defoon naan loolu amul Sénégal ay dëkk yu amul courant amul ndox mu daal di ree ni ma loolu mooy transformation structurelle bi ñu bëgg a def dee ñu ci jóg waaye bis bu nekk maa ngi dugg biir Kajoor

d'ailleurs moom la ma sëñ Abdou Karim kan doon waxaat léegi ma nga foon mu jox ñu exposé boo xam ni moo gën a leer sax ñun suñuy jàmbat ci tëli bi mu ni naa ci taxaw ca xam ngeen ni dëkk bi fii mi ni yàlla dañoo teg am nattu muy natt boo xam ne am ndox la nanu ñaan gaay yu baax yi baay bas sëñ Koso ma ni dama bëgg ngeen ñaan dëkk bii mar yi fi nekk na dakk man ngeen ko ñaanal leen ñoo amum ndox ndox mu jàmm mu barkeel ba bàyyi mun taxawe li yéeneen jee mu am si dëkk bi sonn na lool kan jàll yërëm nan la xam nan sa coona waaye ñoo ngi lay sant ca buggoo dara lu dul daru ko jëm sa kanam du nu du nu xiif du nu rafle waaye sa coono bu yàllal ko yàlla sëriñ Tuubaa fay ci barkeb sëñ Muntaxa mi nga yaakaar njaboot gépp bégati nañ di la ko seereel waaye di la seereel ni sëriñ Muntaxa njabootug sëriñ Moustapha amuñu payam Serigne Ndama ma ko wax daaw la ma ko wax tey ren door a ñëw ku gis li fi wàcc tey ci njabootam nga xam ni bis bi yëmaliwu ko benn bis waxuma la loolu mu yëkkati téléphonam woo Mountakha Kane mii wax ak moom ci bis bi waaye itam nag sëriñ bi sëriñ daam day nee na ni ma ko waxe woon léegi rakkam yii nee na nga ñaanalal ko sagal nañ ko dimbali nañu ko waaye moom nag lii yàlla da ko ko dimbulee ci njaboot gii nga xam ne ñoom la ko yàlla booleel nee na mu jiit jiital nag akam ju baax ji sëñ Mountakha Kane ni ma la ko waxee léegi moom de lu ne defal na ko ko ndax da ko naan lenn daal laa lay déglul mooy lépp loo xam ni bëgg nga ko ci sa dëkk bi wala nga bëgg ko ci sa bis bi wax ma ko na nga ko bëggee yàlla am na ko yonent bi am na ko sëriñ Muntaxa am na ko te danaa ko ci def. sëriñ boo wax ne loolu it moom da ko rafetlu lool gis nañ taxawaay bi rafetlu na ko baax a baax a baax kàddu yi nag xam nañ xëy na mën na fi gën a gudd waaye nag jarale bi dafa yàgg sëriñ bi nee daal mi ngi sant ñëpp sant it ma tooy su sant sëriñ Bassirou nee na tënk na lépp ci sa sant bokk yi yëpp sant bokk taalibe bi ak ñi fi teew yëpp sëriñ bi nee mu ngi leen di sant. Euh, li nga xamne mom lañu la ñu fi sàkko ci ay ñaan serigne taala wax ko lu dem ci dëkk bi it loolu mo dañu bayyi serigne bi dañ ci am li lu ndigal lo xamne dañ ko bëgg yëkëte way do mo da mënta ñàkk sax waaye du du lu baax di def waaw sëñ biir wax na ni mi ngi sant serigne mu taxa kan ci ab taxawaay bu baax baax ci dëkk bi ak ci bis bi mi ngi koy sant bu baax baax baax